Khoureychi gis nañ ne ki nga xamante ne moom moo di Assane Diouf jàpp ko est ce que mën nga xamante ne moom lañ ko jàppee. waaw Assane de fi mu doon def live foofu ci Guédiawaye ci ci guddi doon def live foofu am mhm. euh, bi ñu jàppantee noonu xam naa daf ko jàppoon provocation rek wala yooyu Assane moom dafa tàng mhm. te ñu jot euh, laale tuuti xeexuñu sax mais jot nañu am altercation bu ndaw mais waa ji pare-brise am lu ndaw lu ci fell police yi fa newoon nag yóbbu leen police ñoom ñaar ñoom ñaar ñëpp commissariat ba boobu fekk na presque une heure bi passé na léegi garaawul mu ne man garaawul porté ma plainte dara mhm. mu dem ñu téye Assane nag ni ko non yow dafa ñu téye la ñu ko téye nag ñëwaat waa ji ni ko foog nga porté plainte waa ji ne non man moom yàqulu ma dara jarul may porté plainte mhm. ñoom ne ah procureur daal moo nekkoon da koy téye dafay autosaisir ki wax loolu moom de façon xam nañ ko benn accident la bu nekk ko kooku moom defe naa place am newul sax ci police parce vraiment ni muy liggéey moom yéeme na daal ban police la. police commissariat central bu Guédiawaye. waaw donc euh, vraiment euh, mu ngi noonu moom mooy ko neexee. moom lañ leen jàppee Assane Diouf fi mu toll nii. donc ko jàppee li ñuy wax dégradation du bien d'autrui maanaam euh, yàq yëfu jàmbur daal. d'accord mais boo jàmbur jàmbur foog mu porter plainte mu ne porter woo plainte mënuñu ko topp léegi nag loolu dem nañu ba actuellement léegi heure mooy yóbbu nañ ko parquet. géejawaay ci kaaf bi mu ngi door a àgg nii pour xaar rendez-vous procureur wala benn substitut yow en tant que avocat wam lan nga nar a def fi mu fi mu toll nii non non comme waa ji il est de bonne foi te xam na ni vraiment seytaan la te jotu yu dara def na lettre de désistement boole ko carte d'identité di ñu ko yone foofu ci tribunal pour mhm. procureur gis ko bu ko defee mu def li yoon li yoon sant daal waa mhm. xam ne lii na combat bu procureur mën a mënee mhm. comme ñaari citoyen la yu am problème bu ndaw mhm. ki ñu yàqal ne man baal naa ko te moom loolu gisuma ban infraction lañ ko mën tee mhm. vraiment donc euh, finalement yaakaar nañ